asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi ñu ngi leen di siyaar lu bari di siyaare sëñ Abdou Lahad ak sëñ bi Diop ñu ngi lay siyaar baax di siyaare mbooleem taalibe yi di leen wax ni man Pape Abdoulahi Lo seen ndaw li ngeen yónni woon fii ci jumaa ji bagaas yi ngeen ma joxoon moom lañu indi nii di ñaan nag suñ boroom mu dolli noo dimbali ba ñu paase fii di soññ itam ñi nga xam ne ñëwaguñ ñu gën a góorloo ba liñ bëgg ci liggéey bi ñu am ko niñ ko bëggee di jaajëfal soxna Astou moom macha allah jàmbaar ci liggéey bi soññi ak soxna na fi jaañ ñu ngi koy siyaare baax a baax di siyaare mboolem ku sa numéro nekk ci groupe ba daal te nga yëngu ci liggéey bi ñu ngi lay soññ di la xamal ni liggéey bi agsi na di ñaan sa borom mu dolli noo dimbali ba boo léegi ñu gën a mën lu ëpp liñ def ci barke Cheikhul Khadim bis jërëjëf. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. sëriñ bi ñu ngi lay nuyu bu baax a baax ci turu daayira Muxaddamatul Xidma turu sëriñ Afia mi ko jiitu mi ko jiite ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo nekk ci bureau exécutif bi ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax ci taxawaay yi nga xam ne euh, yéen a ngi koy taxaw ci liggéeyub jumaay Touba muy taxawaay yoo xam ne lu daayira bi soxla la ci ay jumtukaay ñu leen ko waxee yéen da ngeen di fekk fi daayira bi soxlaa rek ngeen dab leen foofu ni ngeen ko defee woon ci ay eau de javel yi ngeen fi indi woon ak détergent yi nga xam ne day nettoyé jumaa ji mu amoon solo lool nga xam ne daanaka mën nañ ne yi ñuy nettoyé ci jumaa ji yëpp moom lañ doon jëfandikoo waaye yëmu leen ci loola di gàtt ngeen fi indi fi ay kopp ak ay kaas ak yoo xamante ni dañ koy jëfandikoo ci koor gi ak lu dul koor sax fii nga xamante ni mooy ci bureau jumaay Touba euh, loolu nag ñu ngi leen ciy jëfal bu baax soxna Astou ak soxna Nafi Diagne ñoom ñëpp ak mboolem ñi nga xamante ni ñoo bokk ci groupe boobu liggéey bu rëy bi nga xam ne ñëwaat ngeen ci weeru safar bi indiwaat ko muy loo xam ne itam ba tey ci euh, tolluwaayu dayre bi da koo soxla bu baax muy lu demee ne ay ventilateur ak ay ay détergent yi muy eau de javel yeeg xeet yi ñuy raxase karo yi ndax ku nekk xam ne ne entretien jumaay Touba daayira Muxaddamatul Xidma daf ciy def lu baree bari rawatina bu ci waajtaayu màggal bi mboolem pile yi nekk ci jumaa ji mboolem ventilateur yi nekk ci jumaa ji te yàqu yëpp daayira bi daf koy soppi kon nag lii su ñëwee dabe ci liggéey boobu dafay mel ne ta ñëwee na fi mu fi mu fi mu fi mu amee solo kon nag niñ ko waxee woon ca yoon wee rek mooy sëriñ bi moo leen di def loo lu ñun ñoo leen di def loo bi moo moo leen di def ndax jumaa ji bëgg cee def képp taxu cee mën a def am loo ci def it taxu cee mën a def mën nga koo yéene tam waaye sëriñ bi mooy tànn ñu ci def kon nag képp koo xam ne sa euh, sa sëñ bi tànn na la ba nga war cee def rek sam xel war naa dal te yaay ñaanal sa bopp rawati nag ci moment bi ñu ko defee ci muy ci weeru safar kon ñu ngi leen ciy jaajëfal bu baax kon su canti daayira Muxaddamatul Xidma yoo xam ne mu ngi bàyyi ko ci suñu affaire ak mboolem waa bureau bi na ngeen leen ñu ko jotal képp koo xam ne defoon na ci ab dërëm muy tam rek na xam ne dërëm booba agsi na ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm di ñaan itam nga daj cee ngërëmul sëñ bi ni nga ko waxee itam képp koo xam ne soo boogu ci woon itam soññee baa ngi noonu liggéey baa ngi noonu liggéey bi sëñ Touba boo xam ne ne woon na ku ci feeñ danga nga feeñ ba faaw waaye ku ci nëbb da nga nëbb ba faw kon nag yàlla na ci ñëpp rek tab bi ngir ñëpp feeñ barkeb Seexul Xadim jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.